d'après qui n'a ramené que mourir Pouy euh, sànq mu annoncé à travers euh, l'émission grande gueule bu 5 TV euh, bu y TV un na si de mu rapport à quoi par rapport à quoi wu mel alors Serigne donc de plus en plus on assiste peut-être yenn a ay blocage yu compte aujourd'hui on nous parle de GFM peut-être ñiy exactement euh, ben communiqué jógee euh, seen ko bor pour ñu daal di war a mën ni franchement lu nu mel war na daal di war mais en tout cas fum tol ni ay supputation lañ daal di war a mën allant dans sens alors ban jàngat nga daal defani par rapport ak li nga xamné que la situation actuelle euh, jamono ji ñuy wax li nga xamné ne que justement que ni presse bi ak Ousmane Sonko duñu wax même langage et que amna lo loo tam taxul itam ko diggante concrètement. wa xam nga information bobu

bu amee itam mën nañu bañ surprendre aussi parce que aujourd'hui le régime en place dafa mel dafa engagé pas pas mm, un combat mais aujourd'hui dans une logique hmm. euh, de faire payer à toutes les entreprises de presse li nga xam ni que fisc et l'autre tamit bu normal mais ce qui me dérange un peu moi, pourquoi euh, initier le nom de Ousmane Sonko là-dedans parce que ce n'est pas Ousmane Sonko qui gère hmm. actuellement les impôts et la nga xamanteni ñom ñoy yëngatu moins nga xamanteni ñom ñoy yëngatu ci walum fisc c'est pas Ousmane Sonko pourquoi aujourd'hui lier le nom de Ousmane Sonko par rapport à ça si on a fermé aujourd'hui les comptes de, de, de des médias pourquoi le nom de Ousmane Sonko parce que c'est pas lui qui, qui, ferme les comptes, à ce que je sache. Hein. Hmm. Voilà, à ce que je sache. Maintenant, il y a une structure dédié exclusivement à ce rôle là ba nga xamanteni mom moy saytu ci wàllum hmm. euh ba nga xamanteni bu gisé ni amna ko xamanteni n'est pas conforme avec les les les les les dispositifs yi nga xam mom la wara mëna jaar ba procéder à un redressement fiscal. Hmm. jàpp na c'est pas Ousmane Sonko qui gère ça. Hmm donte nak c'est le premier ministre mais dama gis ni ñu bare bari ci mom lañuy gëna accentuer le débat Ousmane Sonko a fermé les comptes de nangam nangam nangam c'est pas Sonko qui ferme les les les les comptes. alors loolu dafay ajouté wu par rapport mm. ak euh, la sortie d'Ousmane Sonko au mm. Grand Théâtre Moussa Sidiki si mu gëna exactement est-ce que loolu tamit du pousser ñenn ñi euh, japp ni ki nga xam ne Ousmane Sonko mi si Alors, alors euh, perception bobu la si may mënoon fay bu set TV am jàpp ni Ousmane Sonko pour ñu dal di li nga xam ne na ay euh, presse yi n'a xam ne itam ils sont concernés par le fisc non pas seulement euh, le groupe Future Media mais képp ki n'a xam ne itam bi fii dara laa di laal concrètement Wa xam nga man pour man fàllu euh, aujourd'hui le plus important nekkul ci wax ji hmm. aujourd'hui am redressement fiscal bu am hmm. ñoom weddi wuñ ñi am na hein? te patron de presse yi aussi déggaguma ku ne du Ok. ma jàmbal daal laa ko xaw a dégg non non dañu mënul mënuñu ko fay. mënuñu néna du fay tamit. Ah, wax na loolu. Mm. nee du ko fay. nee du ko fay. ah loolu moom véritablement moom ak yoon la. parce que jàpp naa ni fisc moom. parce que néna na li nga ko jox. Euh, wala kon euh, li ñëw def euh, li nga xam ne moo di évaluer si entreprise am méngóol ak la nga ko jox maanaam 91 millions yi dafa bëri jàpp neen léegi journal bi 15 francs la si am ay 10 francs et tant d'autres et tant d'autres bëgg ko indil quatre vingt millions mu ne da ko war a mën a fay. waaw xam nga loolu yëpp boo amee. Mm il y a des possibilités aussi offertes pour que mën a contester loolu. mais c'est pas par la voie de presse fallait la contester loolu. donc jàpp naa ni bu fekkee ni moom jàpp na ni lañ ko pour le cas de Bougane man je me suis posé beaucoup d'interrogations. Hmm. pour comprendre comment Bougan? fan lañ war a mën a jaar aujourd'hui ba ba mu ameel milliards fisc loolu tamit ça a suscité véritablement des doutes dans mon. su nekkee musul fay nag Serigne. waaw waaw moo tax ma ni bu fekkee ni am nañ possibilité pour mën a contester aussi xam nga ñoom ñëpp dégguma ñu ne dañuy contester. su fekkee lu jaadu la lu jaar yoon la lu tegi si logique. Hmm. dañ ko war a fay à la kuleyaaleen. maintenant nag ce qui se pose actuellement mooy c'est de voir comment euh, payer ces dettes là li nga xamante ni dañ ko amel li nga xamante ni que mooy état du Sénégal hmm. te boo nee état tu parles automatiquement aussi de, de, de, de la population. Quand okay. aujourd'hui, le plus important, c'est de voir les circuits lesquels nous permettront véritablement que nous puissions faire ce que nous fisc. alors donc million exactement tu euh, as nga que que moo fils euh, fisc bi Sénégal d'après ki nga que nekk moo vraiment euh, Ibrahim, recueil bu li nga euh, groupe des médias bu euh, GFM les comptes du du groupe euh, du groupe Futurs Médias bloqué ko ñi xaar peut-être d'un moment à l'autre inshallah allah ñu xool ñoom itam li nga xam que modi groupe bi ana ban communication li dal di war a amani allant dans sens les rek dal di jëm si nga xam nekk mooy fisc bi ak li nga xam que modi di exactement peut-être la dernière question là dessus Serigne mais est-ce que jotul tamit ñu amal li nga xam que modi ay waxtan quoi comme sur su fekkee danoo danoo war a mën a xam que mu di euh, ña yoreel ñu daldi fay de manière moratoire. wa man loolu la japp pour man ce qui importe aujourd'hui c'est de discuter et de voir les mécanismes yi mëna permettre à ces entreprises de de presse là ñu mëna fay sen dette. parce que amul licence itam euh, amul licence itam. véritablement hmm. ñu dem ci ben bras de fer bo xamanteni aujourd'hui aujourd'hui mëna am ay répercussions sociales. Hmm. parce que tay entreprise de presse bi bu tëjee bul xam ñaata doomu aadama en réalité ñoom ñoo si ñàkk seen liggéey. donc dina am ay répercussions sociales. ba naa hmm. nag balaa ñuy dem foofu aussi. Hmm. ñoom pour man ñoom ñoo war a véritablement euh, saisir sax état pour que ñu mën a waxtaan fàllu. pour hmm. nga xamante ni dina leen xow wan wan yan mooy yoon lañ mën a jaar bala ñuy fay ñu fay ko wal Walfadjri mi ngi nii dañu tëjoon ay kontam. mais dañu waxtaan. ñu fay lañ mën a fay leneen li ci des dañ ko fay par moratoire entre autres et cetera. man jàpp naa ne nañu engagé wu ci loolu moo gën ñuy dem bras de fair comme li may na Ndour fay wax euh, ragaluñ la premier ministre yaa nekk si loolu amul sens pour man débat boobu. yaa nekk amul sens Fallou xool nañu waxtaan jéem xool naka lañ mën a def bala nga xamante ni am nañ ko te ñoom weddiwuñu ni amee nañ ko état ñu xool nuñ ko fayee pour man loolu moo gën coow li. ba a engagé wu ci bras de fer ak état Sénégal. Mm. parce que bu ñu demee ci boobu aussi jàpp naa ñi ci gën a gaañoo si ñoom lay doon. Mm. kon jàpp naa ni daal man pour man loolu moom mooy aujourd'hui li fi taxaw nañu discuter avec les autorités concernées en la matière pour voir les mécanismes yi nga xamante ni dina leen dimbali ba ñu mën fay seen. alors euh, c'est clair exactement par rapport ak li nga xam ne que moo di seen mécanisme alors ñu daal di jàll si leneen sans plus tarder exactement. Euh,